jugé suba sama jëkkër la mais violent na bépp xeetu violent mën naa ne dóor ak saaga moo gën a ndaw ci lu may def cicatrice bi moo mujj ci lu ma mujjee def te su ma sañoon bu ñu koy jugé suba du rëcc parce que mérité ko. genre ñii ñoom ñooy yàq société bi. mais nag bu len am dara dara dara bu len métti